وصلى الله وسلم على مجمع شؤونه وحقيقة كنه سره سيدنا ومولانا محمد بهجة الكون وضيائه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew di leerloo leer ak jamono muy rajo télévision bu wal fajri fu ngeen mun di nekk rek maa ngi leen di boole te juróomi baat yi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a yell tibbee ko ci suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di dellusiwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow ci wàllu digle lu baax tere lu bon jiitu ci ña ngi koy digal ca ndigle ga lu bon la nga buddeeku ca bu la ca kenn gis su boobaa. ligay ngay digle ci lay doora am ak jeexital waye di digle lu bax fo tollu ju julli fonku len jakka fonku len sen wajuri, tayay ki gëna dëngé sa wajur jakka ji ngay xootee kenn du fa ak yow kenn du ci kenn du la fa gis ba buñ néwon jakka ja danuna ci wa waa ba nga ci doon julli kuy sa xarit bu ko neexee mën naa gëñ ne sama waaja de deewut ca sama waaja de deewut ca deelewut ca te jamono ji am nay kilifa yoo xam ne bu jàkka lakkoon mbaa jàkka daanu man ngaa waat ne ñoom duñ ca dee te kenn gënu leen a rëy làmmeñ tey ci pénc mi su boobaa sa digle gaag sa tere ga du am jeexital yonent bi nee na ak wàññeeku gi njëkk tàbbi ci banu Israayil mi ngi amé ci dang daan gis goor gu daan def lu bon nit taxaw ne ko ragalal yalla da nga bako mu jigi ci ëlëk sa koka defaat lu bon ka ko doon tere du ko tere waye day lekkandoor ak mom di naanandoor ak mom, di toog ak mom ba loola xewé rek ci la yalla sadd ki seen xol ya ak lëndëm rebbu leen ñu mujj alko motax mu ne inna awalan inna awala ma daqala naqsu على بني إسرائيل كان رجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه وقاعده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض موم لا القران اللعن الذين كفر من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لوتخ من كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثير من يتولون الذين كفروا بئس ما قدمت لهم انفسهم بتا لا يجا بتا فاسقون جا يرمي فك آية 71 بتا ولا آية 80 81 Euh, fa nga koy fekk gannaaw soixante-dix-huit ba ca soixante ba ca quatre ayaat yi ma jàngal la boo demee da ko ca fekk kon laay biire manta ñàkk di digal nit ñi lu baax te jiitu ca di tere nit ñi lu bon te kenn du la ca gis boo ko dul def di kilifa li daloon Jibril ba mu tawatee yàlla ab dëkk bu mën a mooy yàlla lool yàlla ne ko yëg naa ko demal nga xalak leen mu ne ko mais xam na ku baax ku fa nekk ku la wéetal mu ne ko tàmbaleexal ci moom ndax ñi ngi mi ngi yëg lu bon lu ñuy def sama pénc mi te naqar lu hut ko waxoon naa la asxaabu ay la nit yi daawuda ya ba ñuy rëbbu samdeeg ña leen terewutoon ak fuñ mujj kon amul kenn ku gën a rafet métier kuy xoote jëme ci diine yàlla ji di digal nit ñi lu baax di leen tere lu bon moom la alquran ne wa man ahsanu qawlan mimman daa ila llaahi wa amila salihan wa qaala innani min al muslimina fusilat aya 33 boo demee danga ko ca fekk digle lu baax nag ak tere lu bon balaa am ak jeexital da ngay jikko fukki jikko ak benn bi ci njëkk li ngay digle bul ca wut ku la tagg bul ca ragal ku la ŋàññi def ko rekk ngir sellal sag jaam ak sellal sag jaamu ci yàlla kon la ko war a njëkk a gën a lal mooy al ixlaasu waaye su fekkee sa waaraate gile yaa ngi ca jublu ñu naan diwa mën a waaraate diwa xereñe diwa xam na muy dugalee aaya ak nam cay génnee foo dem ñu ne sëñ bi toj na fi xam nga ne sëñ buy toj de wax dëgg yàlla man de sëriñ bu tabax ma ko gënal waaye léegi jamono ji loo wax koo gis sax bu ñàkkoon korom mi ngi jéem a xam xorom rawatina suñ mbokki gàmmukat yi da ca xëpp reeloo nit ñi rek nga bàyyi ko ca gàmmu ga boo ñibsee looy wax mu ne billaahi sëriñ bi moo xoromu toj na fa xam nga ne loola musibala la mënoo faa jëlee dara loo mën a jariñoo waaye la jaadu woon mooy ne sëriñ bi kay. waaraateem wa man de demoon naa ba mel na ni suuf xàttanatut ma ban bi ma toog sax yëgatuma sama bopp loola mooy jeexital ak waaraate waaye léegi li ci hëpp comédie rek léeb rek reeloo nit ñi rek ndaxanaxa nit ñi bala nekk seen poos nga dugal ko ci sa poos bi rek nangam ak nangam wax a wax ba ca kanam nga ne yëkkati leen seen loxo yi ku bëgg sëñ diw ma yëkkati loxoom fekk yow ma koy wax sax bëggoo ko ngaa bëgg la ca la ca poosu ña sopp sañ diw mooma rek maanaam ngaa sopp la ca poosu ña sopp sëriñ boobu ngay wone ku ko sopp na nga yëkkati sa loxo yëkkati soppam sëriñ ak yëkkati loxo da koo firndeel ku sopp sa yaay yëkkati sa loxo kuy aawa jugal taxaw ci waaraate xam nga loolu ëpp na nga bàyyee koo fa ñi lay jay yàkkamti nañ déwén kii kay woo mënuñ koo ñàkk jël sëñ bi dafa xoromu kenn mënta nelaw ree rek yow da war a ñëw sippil nit ñi seen bakkaar yi waaye da ngaa mugg ñëw gën leen a sëfal seeni bakkaar bàkkaar dem géewab gàmmu wala géewab conférence boo xam ne mënoo koo séparé géewab ndaga fecc maa nga ca taaxuraan yaa nga ca ku ne ngay jug di lagg ku ne ngay jug di pàkkar ku ne ngay wax wax yoo xam ne ala kulli kenn xamut lan la te yaa ngi koy askane ki nit ku baax foo ko teg yooyu yëpp ñoo ko fi indi waaye mag ñi indi wuñ ko fi woon kon nañuy wax nit ñi yàlla buñ ci seet luñ ñu jox buñ ci seet ku ñu tagg buñ ci seet ku ñu xas buñ ci seet ku ñu joyloo buñ ci seet ku ñu reeloo waaye foo forewul lépp ci théâtre rek indi ko ca waxtaan wa bëgg ko nit ña ree jàpp ne yow ku xorom nga ku xereñ nga lola ikhlas amul ci wenn yoon ta jaamu gune bu xamul ikhlas yaqku wallahi jaamu gune ikhlas rek mo koy dalal wama umiru ila li yabudullaha mukhlisina lahu dinahu hunafaa فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا amalan ولا يشرك بعباد ربه احدا لا ahada la موتاخ يونت بينا يوم القيامه تيالا ne اتي موي كي دي سي a yàlla dana ko mu ñëw yow ci loo newoon mu ne xare ci sa toolu lislaam bi ba dee lu taxoon mu ne ko ngir yow mu ne ko dangay kàcc danga nga bëggoon a wane ne yow jàmbaar nga wane nga ko wax nañ ko jeex na amatoo dara safara nga jëm yonent tubee ko wax inna awala nnaasi yuqdaa yowma alqiyamati alayhi rajulun istushhida fa utiya bihi fa arafahu niamahu fa arafaha qaala fa maa amilta fiiha qaala qaataltu fiika hatta stuhistu hatta stushittu qaala kadabta walakinnaka qaatalta li an yuqaala jari'un faqad qiila suma umira bihi fa suxiba ala wajihi hatta ulqiya fi naar yonent bi ko wax kañuy njëkk a atte mooy kii ne dafa dee ci xare yàlla wan koy xéewalam ba mu wan ko loo ca def mu ne xareel la ci rek ba dee mu ne ko dangay ngay kàcc yow daal da bëggoon mu ne jàmbaar nga wax nañ ko ñeme nga ya wax nañ ko jeex na yàlla ne diril leen ma xar-xaramam ba yóbbu ko safara kon bëri na ku dee ci xare fekk deewut ci xare fa dee ci bakkanam kum ca teeg waaraatekat yi jànkate alquran yi lu lam wax mu ne war a wa rajulun la al ilma وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار mu ne ku ñaareel ki yàlla njëkk a xatte ku ñaareel ki ca tegu mooy jàng katam alquran ak ku doon jàngale alquran yàlla dana ko teewal wan koy xéewalam bam nangu ko mu ne ko xéewal yu rëy yii ma may la tabaxal nañ la daara daanañ la may ceeb daanañ la joxe enveloppe koo mos a fekk mu teral la koo mos a dajeeg mu summi ay daalam jox la ñaari loxo koo mu a dajeeg mu teral la ku la ku dajeeg yow teral la ku la fekk si teral la fu nit ñi tok ñu ngi lay xupp kenn bëggul nga tang dëkk bo wàcc ñi soppi seen ñam ya soppi seen lal ya soppi seen darab ya buñ taanu togu ya pusa dañ ko togu ngir yaw way way xewal yi ma defal la loo ma ca defal mu ne ko kana jangale ci sa téré bi ak jang ko rek mu ne ko bi ngi koy jangale kat dang ca jublu won ñu ne yaw ku man quran nga ku neex baat nga koy doon nga ci jublu wax nañ ko jeexna diril leen mako yobbu safara est ce que moo tax nañ ci bàyyi xel bëri na luñ askanee yàlla jëf ju tool nit ton fekk yàlla amul ca liibaar billaahi maa la ko wax yàlla ne ko danga ko koo def rek bëgg ñu ne borom xam-xam nga wax nañ ko jeex na diril leen ma ko yóbbu safara ku ñetteel ki mu ne mooy ki yaata ya ki yàlla yaatal wërsëgam jox ko xeeti xalal yëpp muy joxe rek gars yi naan ak a baax ak a tabe pourtant moo ngi tabaxal suñ jumaa ji moo ngi jëndal ay rajo pourtant moo ngi indil solaire bi pourtant moo fi indi yoon yi moo fi indi hôpital yi nangam ak nangam aa wan koy xéewalam ba mu xam ko loo ma defal mu wax ko lii mu ne ko danga ngaa bëggoon ñu ne ko tabe nga wax nañ ko jeex na safara nga jëm moo tax mu ne wa rajulun wassa allahu alayhi wa ataahu min asnaafil maali kullihi fa utiya bihi fa arrafahu niamahu fa arafaha qaala fa ma amilta fiha qaala ma taraktu min sabilin a tuhibbu an yunfaqa fiha illaa anfaqtu fiha laka qaala kasabta walakinnaka faalta li yuqaala huwa jawaadun faqad qila suma umira bihi fa suxiba ala wajihi suma ulqiya fi nnaari lii hadis la muslim moo ko andi demal nga seeti ko ca kitaabul imarati mooy buntu booba ca safha 1905 boo demee da nga ko ca fekk Tirmisi andi nako ci buntab de droit duna dang ko fekk ci 2382 yi andi nako ci buntab jihad yaa ngi koy fekk ci buntab 3137 imam Ahmad andi nako mom timit tamit yaa koy fekk ci 8707 bo demé fekk ko ca kon mbir ya ngok def yombuna waye def ta yalla tax mo jafé def ta yalla tax yalla rek ko meuna a xatte bëri na lu nit ñi atte ne def nga ko te fekk yàlla tax waaye yàlla moom mooma nga jëf moom xam na ne taxut bëri na ay galgal yoo ca roof waaye galgal yooya yàlla nga koy dindi yowmal qiyaam balaa nit ñi ñu lay jay rek bëri na koy jay naan aka baax yàlla ne aka bon bëri na koy jay naan aka tabe yàlla ne aka nay bëri na koy jay naan aka xam yàlla ne aka réer bëri na koy jay ne ak a sell yàlla ne ak a naafiq nit ñi tàggal la jox la garaat taxul laa am garaat garaat bëgg kenn koy joxe te mooy yàlla ñun ñii ñëpp ñu ngi liggéey ka ñuy liggéeyal ne mekk keroog ba mu ñuy jox suñ not ya nag foofa la bàkk door di jotee foofa la bàkk sa mbër mi door di jotee waaye bëri na koo foogal fekk fa nga ko foog nekku fa de bëri na loo foog fekk xamut de tekki hu na nit ñi fañ la teg fa nga ne fa yàlla teg rek fa nga nekk lu ci bëri tey ñu koy waxi caaxaan rek la yonentu wax na ko bari na xabru bu ñuy siyaare borom a nga safara loolu nag jar na baxi xel dafa bëgg a wane ni ngeen yaakaare ni ne mbir mi yombee yombee wut ko mbir mi yombul de xalaaxira ay mbiram ku la ko yombaloo xeñ na la ko maa la ko wax ku la ko yombaloo xeñ na la ko kon yoonu yàlla wile ak ku ca bëgg a xoote sa première ba mooy sellal ibnu ataayila askandari dafa wax ne jëf yëpp ay jëmm lañ waaye rooxu gay dundal jëf ja mooy sellal lu sellal génn mu yàqu yàlla nag li jëf yi rëy rëy soxla wut ca tus lu dul sellal ga sell ga nag mooy loo def te yàlla rekk tax nga def ko loo def te yàlla tax nag seetoo ci ku la tagg seetoo ci ku la xas bu la nit ñëpp xëcc xëyoon di la di la tagg sax dañ lay déranger am na koo xam ne boo koy tagg rek yaa ngi koy xatal nu ne dana ko toogee nu ne dana ko dana ko dana dana ko dana ko dana ko dana ko gëmmee dana ko sëggee ndax dafa rus da ngaa xam ci moom lu baax ba di ko tagg moom mu xam ci boppam lu bon loo xam ne boo ko xamoon doo ko tagg te nit ku ne loo ko xam-xam mu gën a xam boppam balil insaanu ala nafsihi basira moo tax kon te ku ne géwél log yi bi la tagg fu ñu la dëkkale fa nga dëkk ñu ci ëpp jay rek ak wut dépense ngay cugur jugari réyal yi dara di xoddarti koog defaraat sa kaala geek foo ne yaa ngi ci dara fekk nekkoo ci tus bala nga koo xam nga dee dugg ci sa biir bàmmeel ngay door a xam yaay kan moo tax yonent bi ne yéen ñëpp ay nelaw ku dee xeewu buñ dee la ñuy door a xeewu nañ ci baxi xel. mu ne ñaareel ba booy woote sa woote yi da nga koo war a teg ci xam-xam xam-xam ba nag mooy xam-xamu alquran ak sunna waaye woon nit ñi ci ay xuraafaat li ngay woote li muy xumb xumb munuñ munuñ koo teg ci alquran munuñ koo teg ci sunna niti caaxaan ya topp la ca riir ma rëy mbooloo ma bëri. nit ñay daanu nga foo ne yaa ngi ci dara billaahi boo deexee yàgg nga la topp ci ngay door a xam ne nekkoo ci dara moo tax alquran ne qul hadihi sabili ad'u ila llahi ala basiratin ana wa man tabi'ani wa subhanallahi wa ma ana min almusrikina seeti ko ca yusufa aaya 108 loolu la yàlla bëgg yoon wu leer naññi wii ci laay woote wutuma woote wuma ci ñal ma teg ko ci xam-xam bu wér ak képp ku ma topp ci laa tegu teg ca ku ma topp maa ngi seede ne ma ca bokkaalekat ya seete ko ca Yuusufa ñaareel ba yàlla ne udoo ila sabili rabbika bil xikmati wal mawcidati alxasanati wa jaadilhum billati hiya axsanu inna rabbaka wa alamu bi man dalla an sabili wa huwa alamu bil muhtadina seeti ko ca naxli aaya cent vingt cinq ca nga koy fekk kon gannaaw bi nga sellalee xoote gi ñaareel bi na xoote teguhu na ko alxuraan dalal na ko sunna lal sa xoote bi yëpp nga teg ko ci alxuraan ak sunna xamul dara dara dara luñ la mën a jamee amul lenn loo wax luñ mënta fekk ci alxuraan xamul lenn maanaam looy digle mbaa nga koy tere luñ mënta fekk ci sunna xamut xoote booba la yàlla soxla waaye xoote bi rii rek te ñun Sénégal yi li Seex Anta daan wax yàlla na ko yàlla yokk wér yal na ko yàlla yokk leer ku baax la woon Cheikh Anta Diop mu ne Sénégalais yi dañoo bëgg ku leen nax ba boo leen naxut sax tas seen yaakaar moo tax booy woote di naxe ci mbooloo maa la ko wax nit ñi bëgguñ lu yomb nit ñi yomb rek lañ bëgg waaye boo leen wooyee ci lu yombut ñu war la gannaaw kenn mënu ci dara dañoo bëgg ku leen nax ba boo leen naxut tas seen yaakaar waaye boo leen naxee rek ñu nangu ñu nangu laa topp nga leen ni dig loo xam ne kàccee du feeñee fii àllaaxira lay feeñee bu ca feeñee nag nga ne ah maa am naa bi musriq ko ma naa musriq ya munu leen maa xettali munu maa xettali la Iblis waxoon nga wax ko rek mu jeex kon nag naxoo mbaay nga kàccal leen fii ñi lay gëm di daanu waaye bala ñoo xam nag da nga doon kàcce àllaaxira lañ ko doon door a xamee su ko defee nag léegi nag nga ne yum yàlla gotti la toroxal la ba nga gën a torox. cuuju ganaar bu tawte mu rëcc la ci kanam sam mbooloo toroxal la fa door laa booleeg ñoom dugal safara yal na yàlla musal ñu ci kon lu jar a baxi xel la xoote lu jar a baxi xel la mag ñi musuñ koo ñemee seex na tijaani ko ko mos a wuy si mu ne kullu naa naxtaaju ilallah bu ñetteel ba booy xoote day fekk li ngay wax nga di ko jëfee ci lay xamee jeexital waaye waaraate bëgg rey nit ñi tànkal leen li ngay wax jëfoo ca dara li ngay tere woo ca dara ci njaalo nga dëkk ci naan sàngara nga dëkk ci fen nga dëkk ci jëw nga dëkk ci xas nga dëkk ci lekk xalli jàmbur yi lekk ñàkk jàmbur yi ci ngay nekk ku la wane woon ci télé bi xalaa ku leexal ne yéen ñi ko xameel xaq ñëw leen ubbi lii ji kenn mënta wax ci yow lu rafet lépp luñ xam ci yow nit ku bon nga waay waay su boobaa yaay kilifa ak sondel sondel de ma ngay niital nit ña waye ma ngay lakk boppam moo tax shaacir ba lan tuqbala hatta yu'iha nafsuhu awala ya qaumi man azlama min wa man azlamu min min waacifin qad qala fa ma qalahu fil mala azhara bayna an-nasi ihsanahu wa ar-rahmana lama qala iskay mu ne waaraateeg aji waaru ji aji waare ji ko nangu ba ta mu njëkk waar bakkanam ba pare door a waar nit ñi waaye fu mu dañoo bëri ñuy waaraate ñu waaruhut yow miy waaraate boo waaruhut ka ngay waar nu muy waaroo bu sotti mu ne xamul benn ku gën ku dàq tooñ waaraatekat boo xam ne la muy jëf dafa wuuteeg la muy wax feeñalal nit ñi nit ñi ak mbaax waaye fekk ma ngay léewoog yàlla ci xare ngir bon ku mel noona waaraateem du jariñ dafay dugg ci li alquran ne at ta'muruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaaba afala taqiluna seeti ko ca baqara aya 44 kon nag ku dul ku ragal yàlla warul digle ragal yàlla wa gayru taqiyin ya'muru naasa bit tuqaa tabibun yu daawi naasa wa huwa saqiimu ku ragalut yàlla bul digal nit ñi ragal yàlla médecin bu feebar la war a faju ne day faje du sotti yaa ayuha rajulu lmuallimu gayrahu hallaa li nafsika kaana za taalimi yow mi jug na damaa bëgg a jàngal nit ñi bala ngaa jàngal nit ñi te ngaa njëkkee ci sa bopp noonu la koy waxee noonu la koy waxee noonu la koy waxee ba waye jeex lu bëree bari la moo tax yonent bi dafa daan wax ne guddi giñ ma rañaane romb naa aw nit ñu ngay dagg seen tuñ ya ci ay sisooy safara ma laaj Jibril ne ko waaw ñii nag mu ne ma ñu doon waaraate kat ya sa xeet wi ñi fi nekkoon topp rajo yi topp maanaam rajo yi di rajo rajaxe rek topp télévision yi bëgg a feeñ rek topp réseaux sociaux yi topp géew yi fu mbooloo gën a xumbe nga sol dara joo xam ne kenn xamut la muy niru mel ni buur ne jëng ca kanam di wax nit ñi loo xam ne defoo ca tus ñooñu nag. li leen yàlla naree mbugalee ëllëg moom lalay lay wan bu yowmal qiyaamee dañ leen di dugal safara jël ay siso di dagg seen tuñ yi moo tax yonent bi waxal boppam du waxi kenn maratu marartu laylata usriya bi ala qawmin tuqradu shifaahuhum bi maqaarida min naarin qaala qultu man haawulaay qaalu xutabaau min min ahli dunya kaanu ya'muruna an-naasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluuna al-kitaaba afalaa ya'qiluuna seetil hadis bi imaam Ahmad Tabaraaniyu demal nga seeti ko ca mu'jamu saxiir ak mu'jamul awsat boo demee da nga ko ca fekk. kon kooku mooy melow ñetteel wi mooy li ngay digle na fekk nga jëfee ko la ngay tere na fekk nga bàyyi ko ci lay amee jeexital yàlla ko xam fulla la. li ngay digle boo ko dul def mënoo fexe ba yàlla def loo ko ñu ngi koy digal li ngay tere boo ko bàyyiwut mënoo fexe ba yàlla tere ko ñu ngi koy ñi ngi koy tere loo nga koy da nga koy njëkkee ci sa boppam door xam jeexital waaye tamit ñeenteel ba ab waaraatekat di jàngalekatu diine dafa war lewet dafa war a yaatu dënn waaye ku sa xol tat ku sa xol bi bon mënoo jàngale diine. moom la alquran ne fii qulubihim maradun fa zaadahumullahu maradan kooku mën ta jàngale diine alquran waxaat na ko fala taxda'na bil qawli fa yattama alladi fi qalbihi maradun feebar boobu di feebaru xol bu nekkee ci sa xol bi yow ci sa bopp mënoo jàngale diine moo taxoon sufiyaanu suuriyu dafa ne dama tawatoon feebaru sori yàlla benn góor a ñëw ci sa sufiyaanu suuriyu ne ko dama lay tawat feebaru sori yàlla ma bëgg nag mu melal ko loo xam ne dana mën a saafara ala kulli haal xeeti jàngoro ju nekk ci moom xoolal li ko Sufyaanu Suuri yuy wax dafa ne ko demal nga xuti ren reni sellal boole ko xobi muñ dëbbee ko gën toroxlu nga boole ko ci ndabal ragal yàlla sotti ca ndoxam ragal yàlla taxalee ko safaraaw njàqare xéexée bam ko ko melalee ba pare waage daanu xëm bam ca bayee ko rek la mel nam war a mu ne bu paree nga nga nga jottandikoo ko ténqal dëggu naanee ko kaasab jéggalu yàlla galax ndikoo ko maanaam galax ndikoo sàmmuhu waaye tamit nga soril sa bakkan waris xiir ak xemem téef soo ko defee jàngorooy xiir ji nga wax muy sori yalla gi dana mu saafarawu waa waja daanu keroog la wér xam ngeen ne bi médicament amul ci pharmacie yi ñi jaay médicament bi timit bari na sëriñ buñ top ya tax amul médicament bi gaay yu bax ya nak médicament bi lañ amé hon motax ña febaron ñewon ci ñom ala kulli hal wér am ci suñ mag ñoo xam ne doon féré kanté ferekante dañ leena fekkoon naan sangara mag ñi soppi kaasu sangara ya kaasu leer dañ leen daan fekk ñi ku man sa morom duma ñi soppi leen ci ku man sa morom dimbale ko dañ leen daan fekkoon ci ku man sa morom xotti suturaam ñu yóbbu leen ci suturaal leen kon lii ku mel nii moo mën a defar nit wilaaya boo ko amul lu coow li bari bëri mënoo defar kenn wax ju bëri rek mënoo defar kenn hitte mooy dagale nit ku la xëpp hitte xëpp la nit mën leen a dagale xam-xam mooy téye nit wilaaya mooy defar nit boo xamee it tey kese mën ngaa dagale lu bari ci nit waaye boo yoree xam-xam ab kese mën ngaa téye nit ñi nax leen ba téye leen ci sa xam-xam waaye kenn du defaru boo yoree wilaaya nag ci nga leen door a mën a defar wilaaya rek mën a defar nit waaye boo toppee ku dul borom wilaaya fa nga xamoon daaw ngay xem ren da ngay yëg sa damaa gën a gotteeku na ma ni ma ñemee yàlla bi ma roofoogut ak kii ni ma ñemee yàlla léegi ñeme xuma ko woon yàlla maa la ko wax ñett yi rek a fi ne hitte xam-xam wilaaya hitte dagale nit la man xam-xam téye nit la man boo kàccooree nax ca nit ña ba xeew leen waaye tamit wilaaya lim man mooy defar nit moo tax nañu topp borom wilaaya yi boo toppee borom wilaaya rek mu defar la waaye boo toppee ko xamul wilaaya mu yàq la maa la ko wax juróomeel ba yow mi xoote jëm ci diine da ngaa war a muñ danga ngaa war a nekk muñ kat nit ñi kat ñu la toppee lu ñu xam ci njariñ indil la ko waaye lu ñu xam ci lor sëf la ko moo tax yàlla na yaa ayyuhal muddathiru qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa thiyaabaka fa tahhir wa rijsa fahjur wala tamnun tastakthir lu jate ko wa li fas biir waxaat ko ne ko fasbir kama sabara ulul azmi mina rusuli moo tax mbir yëpp ci muñ la ne sëriñ bu la dàq muñ ëpp la résultat waaye man daal sëriñ laa boo xam ne damay xenu njëriñ yi waye duma henu lor yi man da nek de dana xam ki sa mbolo mi ñu la saga nga muñ ko dana xam mi sa sa mbolo mi ñu lay sacc nga muñ ko ba melni serigne abdou Abdul bako waje sacc waajay mu yek ne wajang ci poste ba mu hat buntu bi nank bàyyi ba waje pare ba dem mu ko bi buntu ba bañ ko bet bañ ko laaje mu ne mako def mako ko warona jox avant mu koy soxla joxuma ko ko ba mu ñëw far di ko jël sil boppam moom tooñul ma man maa ko tooñ loolu mooy nitu yàlla pire loola mooy nitu yàlla waaye nag sàcc bi sàcc na ma yooxu ko yow sëriñ ba yaa njëkk a yooxu dóor leen mu dee <laughs> doo sëriñ sëriñ dafay nangu ñu nax ko mu xam ne ña ngi koy nax mu bàyyi ca nax ya waaye nekku ne ku ma nax ma weer la soo ko defee du sotti kon dangay muñ muñ ci la lépp nekk موتا عائشه مني يونتوي واخ لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبه اذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليلى ابن عبد كلال فلم يجبني ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa wa anna bi qarni thaalibi fa rafa'tu ra'si fa ida ana bi sahabatin qad adallatni fa nazartu fa ida fiha jibrilu fa naadaani xadis bu gudd la yonent bi dafa taxawal Aysa ne ko dajay naag sa nit ñi coono métit woo xam ne waaye benn rawut ca keroog ba Xadijatu génnee àdduna Abu Taalib génn àdduna ci même xat ci même weer ci même semaine ñett fan lañ rawantee may dem di seeti samay nijaay ca Taïfa fekk fa ñett ñoo xam ne matuñ kilifa Masoud Abdou Yalil ak Habib kii ne ma yow ku la yónni ma ne ko yàlla mu ne kon dana la neex foofu la xem ak man kii ne ma ku la ko yàlla mu ne ko man mënumaa wax ak yow ndax ndawal yàlla rëy na ba maa wax ak moom ñaara mën a xam benn nga wax dëgg boo waxee dëgg ndawal yàlla nga kon yow man xëpp nga ma mënumaa wax ak yow boo waxul dëgg ku dul wax dëgg mënumaa wax ak moom keneen ki ne ma ku la yónni ma ne ko yàlla mu ne yàlla ñàkk kum yónni ni mbindee fii xam tànn lu dul ab jirim ak ak baayo ñaari weer sa biiru yaay sa baay génn àdduna juróom benni xat sa yaay génn àdduna juróom ñetti xat sa maam Abdul Mutalib génn àdduna nga xam juróom fukki xat yu manqué yi weer abu taalib mi bokk ak sa yaay sa baay nday ak baay génn àdduna yow ko la fat léegi tey mu génn àdduna xirital xale yu ñu yarut ña ak maanaam jigéen ñu xamut kilifa ña ak mag ñu jëmut fenn ña ñu koy sànni xeer ba mujj xaañ say dub nu xaarisata mi àndoon ak moom coono bu ma daj foofa yonentu nee na mosuma koo daj fenn ñu koy sànni xeer ba mu xaw a mel ni ku xëm mu ne ximmalikuuma lu ma ñëw ci xarnu saalib ma gis aw niir ndika jibril la ca ne mu xooma ne ma sa borom nee na yëg na coono bi ñu la dal mu ne boo bëggee ma boole ñaari doj yi këpp ko ci kaw dëkk bi ñoom ñëpp ñu dee mu ne ko non na leen bàyyi ñoom buñ ma gëmut ragal naa dana génnee ci seen digg yi ñu ma gëm te su boobaa diina ji yaat diina ji yokk loolu moom ma gënal yonentoo xam yaakaar moo tax maanaam mu mujj ne ko demal soxlawuma ku leen bugal jéggal naa leen boo demee seexal islaam dafa daan wax ne jéggal na leen jéggalul leen layal leen ndax jéggal na leen ne topp leen dara jéggalul na leen yàlla ne allahumma ixfir lahum layal na leen ne fa innahum laa yaalamuuna dañoo xamul rek moo ñu may def lii kon ñoom bu ma ñàkkee ci ñoom yaakaar ñàkkuma yaakaar ci ñuy war a génnee ci ñoom kenn du yonantu mbaax wutee naag noox mi ne woon rabbi laa tasar alal ardi minal kaafiriina dayaaran wutee naag yonantu yàlla bu Musaa mi ne woon rabba natmis ala amwaalihim wasdud ala qulubihim falaa yuminu xatta yaraw azaban alim walaay xutee naag yonentu yàlla ibrahima ne fa man tabiani fa innahu minni wa man asaani fa innaka gafur rahim kon demeet kenn du yonentu bi ci ci ci yaakaar su ko defee nag mu jéggal leen moom la maam alaaji Malick ne lawla nabiyu rasulullahi laxturimoo bi laxsa bayni walakin na man na walakin man na min karami kenn du mag gis nga ko kon bo nekké hoté kat fo ngay muñ ku dul muñ du mujjé dara ci lu bax waye foog nga muñ yonentu ba ngok mo dakk mu ñep wax naa la ci qisas qisas yoyu waye timit mom la alquran ne ko wa amur bil wa nahy anil munkari lol la ko yalla wax juroom bennel ba timit foog nga nekk jambar nit ñi ku leen bëgg ho woo nekk tàppet buñ la xuppee nga daw kenn du la fa fekk buñ lay huuy buñ lay fekk ab tapet ku koy huuy ji bala ngaa dem fekk ñu daw bala gaa yi yuuxoo nga baxi li nga nekkoon daw bu sotti waaye juróom-ñaareel ba fokk nga nekk ku fegu nit ñi bu mënuñoo topp ku leen gënut mënuñoo topp ku leen tenexut waaye yow yaa ngi bëgg a woon nit ñi ci mbaax te yaa leen gën a bon ku la gis man laa dàqee jabar jàmbur nga wane ay doomi ëmbal yu dul jeex ñu mën koo wane firndeel ko koo mën a woo ci lislaam koo bëgg a woo ñu ne bu ñu fontoo xam-xam nga sa bopp nga ne mekk juróom-ñetteel ba tamit da war a doylu ku bëggee mën taxoo kenn ndax bu la gaa yi ngeree xëpp la xalal ji rek nga mujj tàqali kook sa sago ku ca takkab seen nuyu la doo ko wax dëgg ku takkab lam doo ko wax dëgg kuy fecc doo ko wax dëgg ku woy sa maam doo ko waxati dëgg yàlla bu mu indi addiya buy góor guy xeesal doo ko wax dëgg ndax da ngaa doylu hut waaye boo doylu woon ne li ma am yàllaa ma ko jox moo ma ko mën a xeñ ku nekkul ci dëgg nga wax ko dëgg noonu la yonent bi meloon juróom-ñeenteel ba da ngaa war a nekk kuy dëgër loo yàlla afiqatu billah bul sukkandiku ci kenn ku dul yàlla koo sukkandiku ku dul yàlla mu daana da mu daanu daanee xale la kon nag fa fa imma nadhabanna bika fa inna minhum muntaqimuna loolu ngay dund boo ko defu doo dem fukkeel ba nag mooy fokk nga nekk fa fasaa nit ñi kat ku leen bëgg a waar li ngay wax dañ ko war a xam waaye waaraatekat ba la wax ñu ne xamuñ ca dara moo tax yonent yàlla Muusaa ba ko yàlla we mu ne ko rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani, yafqahu qawli waaye waaraate kat xoote katab diine bu fasaaxut manta andi benn ab jeexital ci discours am waaye fokk nga nekk ku fasaax waaye fukkeel baag benn nag mooy ne da nga amee uslub bo xam ne da nga am façon booy façon booy joxe sa uslub. waaye léeg-léeg nga fasaa melokaan yi muy critères yi ma wax yépp dëppoo ci yow ni nga sa discours ba fa yàq sa discours boo koy bul xeeb jigéen jox ko xaqam bul xeeb gone bul xeeb ku ñàkk bul bul yëkkati ku am ci kii ci biir ku ñàkk boo gisee yonent bi discours am bi jàll ba mu ñëwee bokk na ki ñam njëkk a sóoraale mooy jigéen ñi ne li li rijaali nasiibu maa tarakal waalidaani wal aqrabuuna waaye wal nisaay nasiibu maa tarakal waalidaani wal aqrabuuna waaye gis nga discours am bi bàyyiloo na ca xel tamit eh, eh, fuqaraaw yeeg masaakin yi wa ida xadara alqismata ulil qurba wal yataama wal masaakin farsuquhum minhu wa qulu lahum qawlan maarufan waaye boo jëlee sa discours bi ne man borom am am yi laay wax ak sooy waraate sax borom borom ndomba tànk yeeg ministère yi bu ñëwee nga soppi sa discours bi di leen tagg mel ni ku teqalikoog sa sago amuloo benn personnalité borom alal bu ñëwee nga teqalikoog sa sago mel ni moo la bind ku mel noona mënta mënta réaliser dara. waaye da ngaa war a gën a yëkkati ñu ñàkk ñi ci kaw ñu xam ñi da ngaa war a gën a yëkkati jigéen ñi ñu gën a dem ca kanam nañ leen den nañ leen den daaneelee discours bi moo tax yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mbiram ma mën a réussir kon nag fukki melokaan ak benn yii képp kuy xoote ci diine melokaanoo ko doo am résultat fa nga jëm tamit doo fa doo fa yegg na fekk lii lépp ba nga koy def tamit ndigalal yàlla lal ko booy xoote te xamuloon ndigal sa xoote ba du xam njariñ wa daaxiyan ilallaahi bi isnihi wa siraaja muniran rek moo ci mën a tegu waaye bi isnihi bu xamul wa siraaja muniran tamit du mën a xam mukk boo ma toppee suba nag ci waxtu wi ma dugg ak yow ci aaya bi nga xam ne alquran lépp lépp lépp moo ci gën a naqaree fii alquran lépp lépp lépp moo ci gën a naqaree li arab yàlla dugalante jumla ya moo gën a naqaree li arab alquran lépp lépp lépp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 فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى لولو موي نيك سون دارسو الله بي موي اي بي غن نقري الاعراب بري نكو جانغ نحو با جيهال ابن مالك بوكو الاعراب بو اي بي دكو من الاعراب خنا مو جانغ ابن بون وايي تيميت اي جي على كل حال موي اي جي غن نقري فري تي القران بري نكو من فري القران بوكو تغالي اي جي دكو من فري ni masalam lam yafuta ca Laxdari gën a jafe ba ku jàng Laxdari nga ne lan lam yafuutaa mooy lan li ana suurata wal juluusa lam yafuutaa googa nim naqaree lijjanti ci Laxdari ni la aaya ji na gën a naqaree lijjanti tamit ci alquran boo ma toppee suba li ñuy gàtt gàtt xam-xam ci lépp rek ñu jéem cee jéem kem li ci borom xam-xam yi wax waaye suba ci waxtu wi la doon insha allahu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wa sallallahu wa sallama ginnaaw bi nga seetaanee vidéo ba pare fekk abonné ko na nga abonné te bës tuus cloche bi ndax bu ñu dugalee vidéo nga mën di jot notification yi